Action'Aid liggéey si jigéen ñi ak si xale yi mooy xolu liggéeyam ba tax na lépp lu ñuy yëngu si wàll xool nan lañ leen di jëmalee kanam la loolu moo tax euh, lu mel ni campagne ces jours ñun aussi dañ si am wàll bu rëy loolu moo waral suñu toogaay fii euh, boo xoolee donc euh, dafa nekk Euh, campagne bi dafa nekk loo xam ne lii dafa am solo si ñun parce que dafay tax ñu ñu ñu def bilan maanaam ñu xool lan la ñu jot liggéey boobu ba léegi mais ñu xool aussi lan fa fan la mbir mi taxaw ba nga xam ne war nañ ko jooyantiwaat si année yi di ñëw loolu moo waral suñu waxtaan boo xoolee aussi fi mu nekk ni ñun rek ànduñu dañu ànd sànq sama kilifa wax na ko de même que directeur de cabinet dañu ànd ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyandool mooy su champion yi boo xole aussi am na service public maanaam ñi nga xam ne aussi ñoom ñoo ñuy jàppale si wàllu wu lépp loo xam ne lii dañ koy moytu pour mutital jigéen ñi ak xale yi ñoom aussi ñu ngi fi boo xoolee boo gisee lu tax ñu ñëw ñoom aussi dañu war a bokk si waxtaan bi parce que ñun suñu liggéey boo xoolee dañu ne dañuy jógee si base bi maanaam dañuy jógee si local yi maanaam zone ñuy intervenir ñëw national bu ko defee ñun bu ñu paree fii aussi ñu mën a yeggali suñu liggéey au niveau international lool moo waral suñu teewaay fii léegi beneen bi aussi mooy ne boo xoolee ñun li ñuy liggéey si wàllu euh, jigéen ñi ñi dafa PSE euh, bi wax nañ ko léegi loolu moo tax ñun mboo xoolee jigéen ñi ñuy liggéeyandool boo déggee sax nu ñuy waxee nga xam ne ñoom lépp lu ñuy wër pour pour ñu dëgër taxaw ñoom am nañ ko déjà parce que muy formation muy financement lépp ñu ngi si. dañuy gis ne aussi xale jigéen ñi nga xam ne dañ leen di mitital yenn saa yi am fu ñu leen dalal loolu moo tax ñun aussi si suñu programme ren yëpp ñu ne nan la ñuy monter maanaam ay kuréel yoo xam ne yi ñoom si seen biir ñoo koy yor mais ku ñu mitital nan lañ lay euh, dalalee Euh, xool euh, fu ñu lay mën a teg ba sa xel dal euh, beneen bi aussi mooy ne campagne bi dañuy continuer aussi di sensibiliser loi bi nga xam ne état du Sénégal teg na ko mooy criminalisant le viol et la pédophilie ñun donc de boo xoolee au niveau communautaire bu ñu jógee fi dañuy delluwaat si LRP si zone yi ñuy liggéey parce que ay caravane la ñuy la ñuy organiser pour mën a dem si gox yu sorente yu sore yi pour mën a waxtaan ak ñoom wax leen fépp fu ñu toll si wàllu liggéey bi pour ñu gën a am am ñu tënk pour ñetti at yi di ñëw ñun dañu am ñetti pàcc bu njëkk bi mooy nan la ñuy xeexee euh, pour ak ak yelleefu jigéen beneen bi ñu ne xale yu jigéen yi kat euh, maanaam li nga xam ne moom la ñuy wax euh, su suñu cosaan ak suñu aada am na si yoo xam ne daf leen tënk ba xam ne mënuñu dem école ñetteel bi nekk mais jigéen ñooñu aussi nan lañ leen di toppatoo ba xam ne ñoom dañuy mënal seen bopp moom maanaam la résilience wax sànq sama naataango bi wax na ko parce que li am solo aussi ba am solo mooy ne jigéen ñi li ñu leen li leen tënk si kër ga dafa bëri maanaam liggéey bi metti na si ñoom metti na si ñoom mais beneen bu aussi am na lu ñuy wax naan lu euh, ñu lu ñuy tuddee le travail de soin maanaam ñoo toppatoo xale yi di toppatoo mag ñi di toppatoo ñi feebar te tey jii dañu ne bu fekkoon ne amoon na ay service maanaam euh, yoo xam ne yi nekk na am na si seen gox Euh, dina oyofal seen liggéey mais heureusement état du Sénégal côté boobu aussi mu ngi si yëngatu bu baax sànq wax nañu Promovilles wax nañ PUDC ba nga xam ne yu yu mel noonu mu ngi commencé am si dëkk euh, dëkk bi ñun suñu liggéeyu suba bi dañu ne dañuy dañuy tënk maanaam ñu jël liggéeyu bi ñu liggéey si violence yi ñu xool yan saa lu tax mu yeex ñu jàpp ne. yenn saa yi suñuy état yi dañuy dañuy am euh, ay ay bor mais bor yooyu aussi bu ñu ko amee pour xool nan lañ ñuy dimbalee pour am yenn service yi mais dañoo xam ne dafa leen xaw tënk parce que bu ñu xoolee pourcentage bi mu am dafa xaw a kawe tuuti mais heureusement ñu ngi euh, ñu ngi si waxtaan ak ministère bi xool nan la ñuy mën a liggéey ak société civile bi pour que aussi wàlla boobu gën a wàññeeku ba nga xam ne lépp lu des foofu dinañ ko mën a jël ñu yóbbu ko encore si projet yi nga xam ne mu ngi si euh, état mu ngi koy def pour ñu mën a soulager un peu maanaam oyofal liggéeyu jigéen ñi